Sénéinfo International. chers abonnés de Sénéinfo International Sénéinfo.net daleen ak jàmm si li gën a fës si xibaar yi tey euh, vendredi 8 euh, décembre 2023. Walf Quotidien euh, voilà moom nee na Macky Amadou Ba et Mame Mame Diop du pays le Sénégal en pilotage automatique donc loolu journal bi xëy tey xamle dans une. waaw ñi nga xamante ne ñoom ñooy jiite Sénégal euh, temps yi nekkuñu fi kenn nekku fi Sénégal euh, léegi jàpp nañ ne amul njiitu réew ndax euh, ki nga xamante ne président Macky Sall ak Amadou Ba ñoom ñëpp kenn nekkul Sénégal actuellement journal bi ba tey rek moo ne coopération franco-sénégalaise bat et borne sur la même fréquence donc ñu des rek ci journal bi mu ñëw ko ci lutte contre le cancer l'hypertension nee na une taxe parafiscale sur le tabac préconisé donc loolu la journal bi euh, xëy xam ne tey euh, dans saa yu Vox Populi moom dafa ñëw ci euh, année scolaire bi nee na la ko ci def liste les facteurs de déstabilisation donc ci journal bi quotidien ñëw na ci ci journal bi Vox Pop ñëw na ci crise scolaire bi ak universitaire bi donc ki nga xam ne moom mooy aéroport Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis désormais opérationnel donc ni ngi démb lañ ko doon inaugurer fële ci Saint-Louis donc jàpp nañ ne am na beneen aéroport boo xamante ne c'est déjà fonctionnel à Saint-Louis donc loolu la journal bi euh, xëy euh, xamle. la tribune moom dafa ñëw rek ci euh, éducation bi nee na l'éducation et enseignement en secteur dans le commandant daanaka daal éducation bi dafa sooxe donc journal bi ñëw di ko xamle tey à sa une nee na le gouvernement prend des engagements qu'il ne respecte pas. Euh, donc euh, voilà nee mu ngi poser aussi sur les milliards euh, injectés du budget de ce secteur milliards yi nga xam ne moom dugal nañ ko éducation bi journal bi mu ngi xëy laajte fan la milliards yooyu dugg. ñëwaat encore si beneen fànn mu ne une tradition de campagne bien de chez nous. à population calomnie invective contre les opposants en période électorale donc ñu ngi waajal élection bi donc loolu la campagne bi donc li nga xamante ne moom moo tourné autour de la campagne loolu la journal bi aussi ñëw euh, xamle euh, euh, les échos moom dafa ñëw si benn sage femme boo xamante ne nee na déféré nañ ko au niveau du parquet parce que boobu dafa doon exercer loo xamante ne mooy médecine illégale nee na elle détient ni autorisation encore moins d'exploiter un cabinet paramédical loolu la journal bi xamle ñëwaat rek encore la crise scolaire universitaire nee na les élections syndicales CAN et un cocktail explosif euh, pour l'école donc loolu la journal bi xamle le COSYDEP euh, invite les acteurs politiques à épargner l'école des rivalités politiques donc nee na syndicaliste bi moom nee na na ñuy bàyyi euh, dugal affaire politique ci njàng bi hmm, loolu la journal bi xëy xam le maintien des étudiants loin du campus risque d'entraîner des abandons massifs ñu des rek bi mu ne procédure d'obtention de visa aux États-Unis le département d'État américain parle de record de traitement des demandes euh, du Sénégal donc loolu la journal bi ñëw fësal tey dans saa une encore le quotidien moom ne fa ne immigration irrégulière l'Union européenne d'attirance plus de 27 700 arrivées de ressortissants ouest-africains entre janvier et octobre plus d'Ivoiriens plus d'Ivoiriens de Guinéens que de Sénégalais donc loolu la journal bi tey def dans dans sa une aussi fësal aussi euh, euh, single bi nga xamante ne euh, ki nga xamante ne mooy rappeur Fada Freddy def na ko si Sonko nee na Fada Freddy chante la libération de Sonko loolu la journal bi xëy tey fësal dans sa une donc Sud Quotidien rek moom tamit dafa ñëwaat rek sur la même lancée nee na année académique 2023 2024 menace sur l'école et les universités l'inquiétude euh, euh, persiste persiste nee na l'inquiétude persistant loolu la journal bi xëy xam ne tey euh, dans sa une ne na à la veille de l'élection de représentativité des centrales syndicales et surtout deux mois de démarrage de la campagne de l'élection présidentielle les organisations actives en éducation regroupées au sein de la COSYDEP tirent la sonnette d'alarme prescrivent des remèdes pour sauver l'année scolaire donc journal bi euh, loolu la xam le secteur éducation bi nga xamante ne mu ngi am ay jafe-jafe donc loolu la xëy tey aussi fësal dans sa jeexalee rek ci journal bi mu ne développement des infrastructures aéroportuaires l'aéroport international de Saint-Louis mise en exploitation donc désormais comme ni ñu leen ko waxee Saint-Louis am na aéroport bu bees euh, commencé na fonctionner liggéey démb lii lañ leen indiloon si lu gën a fees euh, si xibaar yi tey euh, vendredi 8 décembre 2023 ñu leen di jaajëf bu baax a baax si teewlu bi te leen di leen ñaanal yéen dal jàmm. Sene Info International.